jiital ci ziar bi kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom dolli koo dëgëral ba li mu yéene liggéey suñu borom def ci lu kawe njort di nuyu bu baax kilifa daarul xuddoos di sëriñ Ahmadul Mokhtar ak jëwriñu kër gi sëriñ Cheikh Mbacke Madina di nuyu bu baax a baax jëwriñu daara ji di sëriñ Cheikh Mbacke Ibrahima. ak mbooleem njaboot gi mu bokkal Cheikh Ibrahima ñëpp ci turu sëriñ Ousmane Mbacke mi jiite diiwaan bi di nuyu mboolem bokki taalibe yi nekk ci jataay bi ñëpp mag ak ndaw di nuyu bu baax soxna Xadijatu Ibrahim di ñaan suñu borom dolli leen a taxaw dolli leen a dëgëral ba li leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla nañ ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mébét te mu ànd ko wér akuk tal barakati Cheikhul Khadim tey ñu ñëw fii ci turu diiwaan bi mu lëkkale mboolem bunti këri Cheikh Mouhamadul Moustapha dajale mbooleem njaboot gi ci ndigalul sëriñ Ahmadul Muxtaar ci njiital sëriñ Ousmane ren ñu dolli ci liggéey bi dugg ci biir ëtt yi genn njaboot lañ benn ëtt la it muy ëttub Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ngir nu gën a soññante ngir nu gën a dollente ngir nu gën a jegewante ba jàppoo gi ak bennoo gi Cheikh Mouhamadul Moustapha bëggoon ci njaboot gi mu gën a am nde am na ba noppi waaye mu gën a dëgër tax na ñu dolli ci programme bi wàcc ci ëtt yooyu yi ànd ak njaboot gi fàttalante dollente ngir gën a waaj rekk jëm ci bis bi nga xamante ne nii bis gënu ko rëy ci ñun ndono la it luñ fi fekk te war koo sàmm nu gën koo jekku ñu ah, jataayu waxtaan yi ñu ni nan waxtaane ab yar muy defar jikko te Cheikh Mouhamadul Moustapha mi wuutu Serigne Touba ndono loolu jëkk a wàcc ci loxoom mu fekk waajuram wa Cheikhul Xaddim doon ne ko ca yonent bi sallallahu alayhi nu mu doon yare jeexi tab yar boobu yi ni mu feeñee ci njaboot gi loolu luñ ci jublu mun mooy nun nu am ci luñ ci jànge nu sig ji xoolaat waajur yooyu yi nga xamante ne ni ñoom lañu wóotu yor seen ndono dëkke seenub gent di dund ci seen barke di sagu ci seenub liggéey melokaan yooyu yi ñu mel nu jéem koo def ci sunu bopp kon temu waxtaan wi tërbiya la ñuy waxtaane waaye ñu jeexale ci yarinu Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax ab liggéey la bu sëñ Tuubaa tàmbali woon sëñ Modou bi ñëwee ñun ñëpp gis nañ lim ci def am na njabootuk boppam am na ñu mu doon ne ci sëñ bi am na ñu ko dab ci liggéey bi yooyu yëpp mënees na caa génne ay jëmm yoo xamante ni mënees na leen a joxoñ te génn kënu caa yay njabootu boppam gi nga xam ne moo leen jaboote muy jëwriñam yi nga xamante ni nii ñoo soqi ko ci moom loolu ci la ñuy jox sëñ Basiiru Sekk mi mu andil na ci lu ci xaj ci waxtu wi su noppee luñ ci dolli nu dolli ko ci kon nu ànd teewlu rek déglu sëñ Basiiru ci tomb yooyu mu bëgg a waxtaanee bismillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Cheikh Mbacke Ibrahim mi toog ci suñ gannaaw ak sëriñ Ousmane mi yore diwaan bi ak mboolem seeni rakk ak ñu nekkal ci jotaay bi ñépp ñu ngi leen di nuyu ci seeni tur di nuyu bokki taalibe ci sunu kanam yëpp ak mboolem fëpp jullit mën a ne di jégalu bu baax kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci kanam kilifa yi waaye muy kàddu yu ndigal ci sëriñ bi itam waxoon ne laa tafxaloo shay'an bi xayri isni fal isnu sartun fi sax ni kon ndigal liñ ci am moo tax ñu di ko yëkkati sëñ Ahmadu ñu waxoon ne dañuy yem ci tombub tarbiya lan mooy tarbiya muy wàllu yar yar sunu borom bi mu bindee àddina lépp lii doxal àddina yar mënu caa ñàkk moo tax sunu borom yónni ay yonent yonent yooyu mu boole leen ki malayka malayka yooyu sunu borom bindi leen ci leeram ngir man koo yónni ci ay ndawam moom la alxuraan di wax laa yaxsuuna laa ma amaruhum malaaka du mooy ndigalal boroomam kon ñooñu lay mën a yónni ci ay yonent yonent yooyee nag ñoom it di yar seeni àndandoo ak seen njaboot ndax ci xam-xamub sunu boroom la seen xam-xam di bawoo te yàlla moo tàggat ay ndawam yónni leen xam-xam boobu Euh, yonent bi mu fi jógee itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom rek lañuy ñuy teew si ndax mooy mujjug yonent saxaaba yi jël yarinam booy wéyal ko àdduna nag di dox yàqu-yàqu di gën a bari mu mel ni itam diine ñi koy dunde dafa ëpp ñi koy dundal ba tax na loolu di wàññiku di wàññiku ba suñu jàmbar yi ak si ñoomit jëlaat jiital yar te xam-xam ndax li indi jaawale gu bari ñu bari dañoo jiitaloon xam-xam teg yar te xam-xam bu amee te yar amut su boobaa euh, ba tey yëf yi du mën a jag ña ko suñu borom bëgg moo tax ku mel ni ne Cheikhuna Ahmadul Xadim nag bi mu ñëwee dafa jiital tarbiya teg ci xam-xam ndax xam-xam ak yar mooy tax nit ki mën a xam fi teg tànkam ndax jàmbaar ju njërut jàmbaar ju amut xam-xam te ñu yar ko. maanaam borom xam-xam day ñëw jariñoo ko moo tax sëriñ bi dafa la daan jàngal ba nga ne ar mu yar la ba nga ne nër mu yee la bar nga ne jar kon loolu mooy thème waxtaan wi nga xam ne incha allah moom lañu bëgg a développé sëriñ bi nag ne bu dee seexu tarbiya ab wàccuwaay ci alquran mooy wa tabi sabila man araaba ilaya maanaam na nga topp yoonu gaa yi jëm si ci man yonente bi sallallahu alayhi wa sallama da daan yar ay taalibeem ci kem seen diine ak seen àddina moom la sëriñ bi wax naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa yu rabbi ashaabahu fi diinihim wa dunyaahum ala asabi ma yaraahu kem ni nga xam ne noonu la gisee nit ki fi wàññenam nekk moo xam ci diine la wala ci àddinaam fa la ko yonente bi sallallahu alayhi wa daan ko fa fekk daa ko fa yar ba taxoon ñu doonoon nit ñu ràññ ko noon kuréel bu néew boo xam ne lépp luñ mas a songu daan nañ ko doonoon kuréel bu ñëw boo xam ne diine bu ñëwee ba fii ñoom kuréel booba ñoo tax loolu nag yarub yonente bi sallallahu alayhi bi nekkoon ci ñoom moo tax ñu man ko kon loolu nag moo tax bi Serigne baa ñëwee jël yar moom it daal koy teg ci kanamam xam ne mënta ñàkk ci àddina mënta ñàkk ci nit ku war a jariñu ci àddina ak àllaaxira moo tax mu ne baana baana xayra bi bihi isdaanal fata tulaasimul adabi ay sumaata nee na biir na li gën ci nit ki mooy taar bi gën ci nit mooy nit ki waaj waajale boppam ab yar taxoo ab yar ak fum mën a jëm xeeti yarin yooyu nag suñu demee ba mel ni dafa xaw a néew ci taalibe yi su boobaa day mel ni li sëñ bi bëggoon day am lu ca des te la cay des nag ci nun lay doon moo tax fa kull man bi xayrihi raamal wa suur li xadrallaahi fa qumrun laa nabil ku bëgg àgg ci yàlla te làmb làmboo akub yar nee na daf nga boo xam ni amoo am xel kon ndeke lii taxam nit ki mën a àgg fu mën a jëm ak lépp lu mu bëgg ci àddina ak alaaxira ab yar moo koy maye kon nag bokk yi bu ñu demee ba ab taalibi dem fenn ñu da ko jaawale ndax ab taalibi la wala bala ñoo xam ne ab taalibi la moom kon dafay mel ni bala ñu koo xam mu wax ko su boobaa day mel ni yarub sëriñ tubaa day xaw a wàññi ko ci moom ndax sëriñ tubaa comme yar boo ko séenee muy dox da ko xam Cheikh Mouhamadul mortalaa wax nañ ne bii jamono siñ Modou Sa yoon wi njëkk a demee Ndar bi mu ñëwee eh, nuy ji sëñ Modou Sa mu ne ko dégg naa ne demoon nga Ndar mu ne ko waaw demoon naa fa de mu ne ko xanaa ba nga demee xam nga ne bokkoo ak ñoom de mu ne ko de mu sëgg na ci Yàlla mu ne ko yow rek yaa war a tukki ndax foo dem kenn du la mën a soppi te da leen mën a soppi kon ab taalibe ndekete mag ñi buñ masaan noppi ci yow foo mën a dem koo fa fekk da koy soppi waaye kenn dootu la bu ko defee sëriñ bi itam daal di wax ne wa nataqu bi annahu yakunu sulusay diini fa fadluhu yabin nee na yar xaw tuuti rek mu doon ñetteelu ceeru diine ba tax mënul ñàkk ci nit ki mu tey mu ne bokk na ci yar boobu nag nee na dafa am saayir ak baatin mu yar bi nga xam ne ci ngay ànd ak nit ñi ak yar bi nga ànd ak sa borom loolu mooy yu bari yoo xam ni xañ na lim gi du xaj waxtu yi waaye danañ ci lim tuuti rek mu ne ba ci jiitu rek fa xudda min saahiri husnul xuluq alxayaau fastan yi tafoq ba ca njëkk mooy rafet jikko mooy jikko ju rafet maanaam moom la ñu xam makaarimul axlaaq nga xam ne mënul ñàkk ci nit ki moom la sëriñ bi daan def ci ay taalibeem te makaarimul axlaaq nag la ci jiitu mooy ñàkkatooñ ak jéggal ku lay tooñ ak jox ku lay xañ ak jox ku la dog te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq li tax yàlla yónni ma mooy ma mot li jikko yi makaarimal axlaaq kon dafa mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa mission mooy yar nit ki ba nga xam ne àddina dara du yàqu xam ngeen ne bu tooñ amut mucc dana am waaye bu fayu amut noflaay dana am te Serigne Touba nee na boo joxee ki lay xañ yàlla dana la dolli wërsëg boo xam ne da nga fàtte lam la xañoon nee boo jokkee ki lay dog nee na yàlla dana yokk sa fan dolli la bark te nee na boo dee jéggale la danga not say noon kon xam ngeen ne loolu muy lu am solo loo xam ne bu ko addi bu ko àddina sépp maase woon nekk ci tilbinaar ak police dana noppalu kon mbooloo mi fay daje xañ na kon léegi dootuñu fa dootu fa daje. kon nag bu ñu demee ba foofu fees dell nag police fees tribunal yi fees war nañoo dellusiwaat ci yar sëriñ Touba ni mu yare woon mag ñi sëñ Modou Lo na wax nañ ne bi ñuy dem gànnaar di fekki sëriñ Touba ay wéyu dogaale nañ ko xeex ak moom xeex nañ ak moom ba damm baaraamam te boobu mi ngi jaasi te boobu tul na bi mu ñëwee ci sëñ bi bi ñu koy leeral ñu ne ko xanaa yore woon gànnaay moo ko ah kay waaye ci Serigne Touba laa jàngee ñàkk fayu ci Serigne Touba laa jàngee ñàkk fayu te booba xeex naa ñoom bañ dama baaraamu sànq la ñam te booba mënoon naa fayu kon mu gis ne itam kii fayu kon xañ na am na fulaay amu fa waaye bu boobaa loolu lépp nag li koy mën a maye mooy fondement yar bu baax boo xam ne dañ lay teg xamal la sa borom ndax Serigne Touba lim daan xamal nit ki lim daan njëkk a def ci nit ki mooy jàngal ko tawxiid ba ci ay téereem sax dalay jàngal tawxiid ba nga xam ko ndax boo xamee ne yàlla fépp foo nekk ma nga fa lépp lay def na ko ca bàyyi xel. te lépp looy bàyyi xel ci yàlla rek maanaam dootoo defati mukk loo xam ne ab safaan la kon loolu sëriñ bi moom la daan njëkk a def ci nit ki beneen ba ca teg itam mu fexe ba li ñuy wax xasirul amal daana gàttalal fexe bi nit ki gàttal ay mébétam di yem ci li ko yàlla wërsëgale loolu it bu ñu ko defee kon nit ki dootu xër ci alal ba am lu koy jaral kon nag bu ñu demee ba jamono jàqu ba nit ñi kenn ku nekk alal bari lum la jaral war ngaa delluwaat ci yarub Seexuna Ahmadul Xadim ci nim yarewoon mag ñi Cheikh Mouhamadul Moustapha mii wax nañ ne nit xëy sii na ko ne ko mbàkk dañoo réerut bi te añ amu fa boobu moom it kër gi doy waar lool lam wax ba ki néeg bi mooy jëlal doom bi dem ca magasin ba ca gerte ga lu mu ca attan mu yenu ko dem jaay bëkk néeg bi dem ba ci yoon mu del siwaat ci Cheikh Moustapha ne ko mbàkke day cooroon si gamb na te yow liggéey fàggu war na la boo ko joxee jiw yi lu ñuy bay mu ne ko yow kat yaa ngi may bëgg a bett ndax ree nga te ndekki nga te yaa ngi yaakaar añ daan ne ko kee réerut te ndekkiwut te yaakaarut añ bu ma ko bàyyee ba xiif bi jàpp ko bañ suul ko ci suuf bu ëllëgee bañ ma suulee ci suuf ma jël jiw yi suul ko ci suuf lu may lay sans kon foofu la nekkoon loolu moo doon a yor mag ñi nga xam ne dañoo amoon xasirul amal maan dañoo gàttal seen i mébét te daawuñ gànt soxla kenn kon loolu itam buñ demee ba jamono mel nii dana ci dana ci bàyyi xel ñu war a delluwaat foofu bokk yar bi nga xam ne moom la ñu ànd ki nit nit ki yar ak njabootam mooy yàlla bu la dénkee njaboot daf laa am mission bu la ca sant sëñ Tuubaa nee na bokk na ci euh, adabu shahir nit ki yar ak njabootam ba bu ëllëgee mu man caa ñu man koo fàggul ak yiw waaye itam njabootam sàmm seen bopp ba nga xam ne duñ mën a tooñ ay dëkkandoom ndax kat am na ñoo xam ne ñi ña nga ca lañ war a nekk waaye seenu njaboot toujours ñi ngi ci lor seeni dëkkandoo loolu Sëriñ Tuubaa dafa yaroon mag ñi ba kenn ku nekk yar njabootam am na menn mag mu doon laaj euh, kenn ci ay njabootam mu ne bu doon góor a mata dal jàng waaye lañ ci teg mooy ba muy jigéen nag ba jigéen nag nga xam ne góor ak jigéen ni leen di yare ci yarub diine Serigne Touba amu ci woon xajj ak seen ñooñu ñoom ñëpp la ko boole woon. beneen ba ci tege itam daana jàngal nit ki liggéey ba nga xam ne dootu soxlaalati kenn dara ndax nit ki bu xamee diineem xam boroomam te soxlaalut buur dara fu mu nekk dana fa mën a dëkk léegi nag bu ñu seetee ca dëgg-dëgg xool ne alal ji yokku na wërsëg yi bari na te noppalu wuñ war nañoo seetaat delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi mag ñi dañ daan bay am njël yar seenu njaboot di jaamu seen boroom yem ca la leen yàlla jox ñu nag léegi lépp yokk na te mënatuñoo noppalu kon nag su boobaa war nañoo delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi sëñ bi itam ba mi lay yar. taalibeem yi daf leen a te leen noon saxaaba yi mooy seeni baay ci diine ñooñu nag mu ne alxilmu siimatuhum wala xilmu day danahum doona dawaahi wa inkaaril maqaamati xam-xam ak lewet mooy seen màndarga lewet mooy seen màndarga waaye xam-xam mooy seen tegtal waay waaye daawuñ weddi kenn benn maqaamam nit daawuñ ko weddi loolu boo ko seetaa ci mag yi Serigne Touba yi daa nga ko gis ñoom ñoom duñ bàyyi ba tiimi téere waaye seen jëf ci ngay xamee ne boroomi xam-xam lañ te képp ku dem ci ñoom dañ leen màggal ba nga defee ne yow boo amul xel ak xalaat da ngay jàpp ne ñii kat dañu abu xam-xam fekk wayef gi leen sëriñ Touba jàngal ci lañ nekk bokk na ci lim def ci ñoom itam bàyyi loo leen àddina muy soxadu fi duniya maanaam dëddu àddina dëddu àddina nag bokk yi am nañ ci jaawale gu mag goo xam ne léeg-léeg mu ñëw ci lenn ci ñuy gàtt alliw dañu jàpp ne bàyyi sa bopp la walla sàggane li nga war a def waaye déedéet da du àdduna mooy lépp looy def rek na yàlla tax lépp looy def rek nga bàyyi ci xel yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne adduñ addunya sijnul mu'min wa janatul kaafir adduna mënta neex ci jullit ndax boo amee alal am li nga war a am lépp yàlla suñu borom daf la cee sant foo yem foo xam ni sañoo ko weesu ak loo mën bu dee wér la. sunu borom am na waxtu yoo xam ne bu jotee moomatoo sa bopp sunu borom ko moom mënoo ko ko ñàkk jox moo tax àdduna kaso la ci jullit moo tax Serigne Touba daan wax ne na ngeen fexe ba euh, tib yi bu leen bu leen yàq aw ñam yàq aw ñam nag mooy lekk ba regg te réesaloo ko ci jaamu yàlla. buñ dikkee itam ci Cheikh Mahamadul Moustapha mii nga xam ne tey yàlla na yàlla sunu borom dolli na ko fayal tey bu tuubaa dee Touba mooma. tey bu fi benn seex amee mbooloo ñu topp sa gannaaw gannaaw sëñ tubaa seex Moustapha la loolu li ko ko may nag mooy dafa am lañ ko fàgguloon dañ koo fàgguloon ab yar ak xam-xam fàggoo gu ñu ko fàgguloon nag kenn ku nekk ci nun ñi war na la ci sa njaboot ndax kat lim def lépp du xar baax jàpp ne du xar baax am na ndimbal lool waaye nag sacrifice na boppam lool jëfandikoo la ko Sëriñ Tuubaa xamaloon bu wér ànd li ko xam la mu ko xamaloon ci yàlla lépp mu jëfandikoo ko ndax lenn lu nekk am na fa mu ko ba ko mag nuyoo ne ko na ngeen def mu ne ko mbàkke day ñu ngi sant sëñ Touba bu baax mu ne ko war ngeen ma ca ndax bu Touba dee Touba mën a Touba dee Touba mën a sëriñ ba ñëwutoon nu muy def ak dëkk yi mu ne ko moog yëpp a yem mu ne ko bu fa jëmaa nag mu ne ko moog yëpp a yem mu ne bu fekkoon ne lépp lijjantuñ ba mu nekk ci ay loxo yi ñëpp ci ñi war a nekk. kon su boobaa nu ñu def mu ne ko moog yëpp a yem mu ne ko nag bu Touba de Touba dara mooy lépp sëñ Touba ak 1400 bi 1912 bi mu ñëwee daf koo daal di yebal Touba mu yeesalaat kër yi yeesalaat béréb bi ndax sëriñ bi Touba bi nanguwuñu woon ku fi yëkkatiw sakket bi sëñ Touba nekkee ci géej gi Cheikh ma Cheikh Moustapha moo ko yeesalaat kon nag bokki bu ñu demee ba jamono toll fii mu mel ni rëg-rëg ji ak coow li bari na waaye war nañoo delluwaat gannaaw ñun xam fu ñuy teg suñu tànk kan mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha mooy ki nga xamante ni bii li ko yàlla santoon def na ca lam mënti mësta def la muy tere mooy ki nga xam ne daray sëy daray lu mu yaakaar ci sëñ bi loo xam ne mas na koo taxa def loo xam ne da koo teg ci bakkan musula am lépp lum def ci xam-xam la ko teg ak xel mu rafet su boobaa nag loola lañ ko war a royee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat ci loolu rek ci lañ ko doon roy mooy jikko ju rafet ci la andi woon diine fi mu ko bëgg a yóbbu fépp Cheikh Moustapha itam nag fu yoon wi àgg tey. xelam moom yi ak pas-pasam boobu yi ca la ko fa yóbbu kon nag buñ demee ba jamono niru ni coow li bari na te it yi bari na li ñuy wax te wérut bari na su boobaa nañ siwaat njàngalem Cheikh Mahamadul Moustapha nga xool ni mu yare woon ak njabootam ak ni mu yare woon mag ñi njëkkoon a ànd ak moom ak ni nga xamante ni noonu la yare woon mbooleem rakkam yi nga xam ne ñoom la àndaloon rakkam yii mu yar rek ak ñi sëñ tubaa yar boo seetee ca dëgg-dëgg xàmme wuñ leen rakki boppam yii te ku sëñ Basiiru doo Cheikh Mahamadul Amin doo Cheikh Mahamad Fadel doo sëñ Abdou borom dër bi Cheikh Moustapha la yar te loolu yi nag li tax mu man ko lu sëriñ tubaa def ci moom la te loolu la ca jiitu mooy ab yar ndax xam ngeen ne metti woon na lool turu njañ wi ba mu koy am booba mel melokaanu donga ngir bëgg a liggéeyal sëriñ tubaa moo ko taxoon mu mel waaye sëriñ tubaa moo ko waxaan ko yow dañ la dañ laa yar nga bëgg nga tënku ci sunna ba nga tënku ci sunna nga xam ne booba loola moom la la la daa di euh, daa di jaar ci yoonu sunna sensé colin woowe sensé melokaan woowee kon nag loolu itam bu ko defee bokk yi dana doon bind boo xam ni danañ ci mat a dellu siwaat waaye xam ngeen ne Cheikh Moustapha itam bu fekkonte ne bii defaruñ ko dëgg-dëgg wóotu gi mu wóotu Serigne Touba kon lu bare dana sooxe te boo boobaa liggéey Serigne Touba dana nax saay waaye nag sëriñ bi xam na ne bi bi Cheikh Moustapha bi mu ko waree wuti itam li war a def ci moom lépp def na ko ci moom kon loolu nag liñ ko ciy royee mooy képp ku yor njaboot nga sonn ci moom nga sonn ci moom mënul ñàkk yàlla bu la joxee njaboot rek natt na la alxuraan nee na alal ak njaboot fitna la ci jaam bi ko yàlla jox waaye nag boo ko nangoo nangu caa sonn mu doon ak jaamu yàlla ci yow ndax boo fi jógee dañ la ñaanal aw yiw te danañ def lu baax loo xam ne lii ñu ngi koy defee ca ci sa ci sa ci sa pas-pas bi nga defoon ci ñoom te booboo waa foo nekk tuyaaba daan la fekk ndax am na ñoo xam ne ñi kat imaam Malik dafa waxoon ci téereem ne bu leen rusloo seeni waajur ci biir bàmmeel bu leen rusloo seeni waajur ci biir bàmmeel ndax la ngeen def dañ leen koy won kon képp koo xam ne kii am nga kilifa goo xam ne gi jóge na fi war ngay bàyyi xel moom euh, ca li ngay def ngir wane ni ñu koy garal Cheikh Moustapha nag lim njëkkoon a def bokk na ci li ñuy wax mu saawara maanaam nangoo soo nangu xelam ñépp ndax kenn ku nekk daana ñëw ci moom am na ku ma sa ñëw ci moom ne ko dama laa yërëm ci yen bi mu ne ko loo ma ciy dimbalee mu mel ni dàggag mu ne ko danga may yoral sa bopp boo ma yoralee sa bopp ndax ñëpp ña taalibi Sëriñ Tuubaa yëpp maa leen war a yor danga ma yoral sa bopp rek sama waajur nettali na ma ne ma bi mu fiy nekk ku fi masaan jógee booba jamono ji neexut mag bu mu bu ma masaan nelaw mbubbam lay jël ñu sànge la ko am na ku faatoo woon tayif nee na bi ñu ko dencee ba mu joxe mbubbam ñu sàng ko ba noppi kim dee dal daf ne ko daanaka day yére li ma ci dese day fekk booba jamono ji comme ni demee woon dañoo xawoon a tegaloo mu ne daanaka yére day li ma lu weesu lii ma ci sol li ma ci dese bëreetul waaye ñu teg ci diir bu néew am taalibe bu jógee Gàmbi ñëw andil ko ñaari yi mbasin waaye daf ko téye na ko ndax jaaral ne ko fañ ko war a jaarale muy douane mu nakk nakkal mu ne ko dellul jaarale ko kooku demaat ba ca post ba mu wax ko tubaab bi mu ne ko fi nga jógeek moom nag mu ne ko dama ko yotoon saab sëriñ mu ne ma naa ko delloo si jaarale ko fii mu laaj ko fa sab nekk mu ko ko mu ne ko maa la tax a jóge foofa ba fii mu ne ko waaw mu jëkkati beneen piis ne ko ne ko maa ko ci dollil bii may naa la lépp kon loolu bi ko bi mu ko àndaat sëñ Modou Sa wax ne ko dénk naa leen ngeen di sàmmonteeg luwaay yi leen tënk ci am réew ndax buur deesu ko jalgati kon nag buur diisu jalgati ay ndigalam ndax lim digle manes na ko kon nga gis ne kooku yi itam ko amoon expérience la ci wàllu àddina nga xam ne li ko am cër bi amoon ci sëñ Touba taxutoon muy ñaaj kon dafa bokk ci xel mu rafet nga ànd ak nit nit ñi ci kem lay seen xaq ci ñoom bokk na ci yërmande jum amoon wax nañ am na benn otom boo xam ne itam colon yi ci newoon ci Jurbel kenn la ci woo ne ko boo ma mënee andi oto sumul ma séddale ko fukki fan juróom nga fukki fan juróom yu ne nga ma oto ma séddale ko ma jox la oto bu ndaw bii wax na ne bañ juboo ci loolu ba mu andi oto sumul ba yóbbu ko sëñ Basiiru ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma bi ñu ko yëgee ñu waxtaan ci jàpp ne lii tubaab bi jëlee oto bi sëñ Manu Saa néew na ñu ñëw doon wax sëñ Basiiru doon waxtaan ak moom ne ko dañoo defee ne day tubaab bi lim jëlee oto bi xaw naa néew tuuti waaye wax nañ Cheikh Moustapha dafa dugg ci biir. toogub diir génnaatut ba bëgg nañ ne ko ah sëñ Basiru da ngeen toog ba tey mu ñaan ne ko ah Basiru kan man yéen da may bëgg a bett di ne ko dimbale benn taalib Serigne Touba moomu a oto bi dimbale benn taalib Serigne Touba moomu gënal oto bi kon kooku foofu la nekkoon te booba bi mu def loolu dara amut dara amut kon kooku xalaatul woon a denc kon loolu itam bokk yi buñ ko ci bàyyi xel dana am solo lool. moo ne lim doon def loolu lépp nag teewul mboolam ñi yoroon seeni taaw ci njabootu Serigne Touba moom lañ ko joxoon. mu di leen yar ndax daara sëñ Maxtaar Aliloo ji nga xam ne moom la defoon 1915 ci tundooti mboolem taaw yi ñi ñi ngi ko yoxoon yépp fala leen yóbbu ku mel ne sëñ Abdou Karim sëñ Fallu sëñ Modou Baara sëñ Modou May sëñ Mbakke maddina ñoom ñëpp ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak sëñ Abdou Salaam ñoom ñëpp booba moo leen yor di leen jàngal la war ca daara ja mu di ko def te yàqutoon liggéeyub jumaa ji dara yàqatu ko yàqalu ko woon ci li mu a def ci mboolem këri euh, njabootu sëñ Tuubaa gi dara bu dee rakkam yi tamit li war ci ñoom lépp def na ko kenn sikku ko soxna Astu Gaawaan nee na toog na ba doon magum jëmm jàppoon ne sëñ mënu Sa taalibe sëñ Tuubaa la ndax da ko daan wax seen taalibe bàyyi laa moom la leen daan wax kon loolu wayaf mënu ko weesu waaye itam mu waxaat wax ba am solo nee na man sëriñ Tuubaa mooy sama waajur te dégg naa ngërëmam waaye man Moustapha Jub moo ma doy jub moo ma doy kon loolu itam bokk yi ñu di ko ci bàyyi xel bu baax ndax am na ñoo xam ne ñii xañ na waxuma la sëñ bi du seen waajur dégguñu ngërëmam waaye jàpp nañ ne seen dara seen lépp baax na ba tax lu leen neex def kon loolu itam war nañu delluwaat ci Cheikh Moustapha ci xam ne kenn mënu koo kawe ci Serigne Touba waaye nee na moom jub moo ko doy te lu ko doy nag mooy li kon loolu itam ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. naka noonu itam ak njabootam ku leen yaroon la woon ndax Serigne Cheikh ak sëñ Mbacke man ne bi mu leen di joxe gànnaar loolu itam ñu di ko ci bàyyi xel ndax bari na lu sikk ci yoon wi wala lu lay naqari loo xam ni ku jànge fu mu wërta jànge moo ko waral waaye Ahmadou Dieng Assane bi mu koy bi mu leen di di jox ci gànnaar daf ne ko joxuma leen ngir xam-xam rek ndax ñu leen mën a jàngal ñu ci réew mi daa am loolu gis naa ko ci yow bëgg mu ne ci ñoom. kon loolu itam ku yor sa doom di yarlu du caage jàngukaay boo gis yóbbu fa sa doom bu yàggee léegi nga am ci loolu neexut kon nit kii ndekete war nay tànn ñi mu yarloo roye ko ci Cheikh Moustapha naka noonu itam sama waajur moo ma nettali ci moom ndax xam naa béréb bii ñu toog tey eh, béréb bu ma am kii ndax sama waajur daana ma ko dénk nee na ma maag sëñ Ibrahima mii ñoo bokk mennaat ñoo doon jàngandoo alxuraan ñoo bokkoon benn néeg nee na ma ñu ñaar la sëñ Modou Saata téelandoo ñu tari ci Taïf nee na dañ doon weesaloo mu jël piliyaanam teg neena na kay ñetti yoon la ko gàgganti ne ko beqi waatal man mu jox ma këyit ne ma demal bind indi waaye nee na ma yii gis naa ko ci moom moo daan jiite jàkka ji gannaaw takkusaan mooy jàngale xam-xam bu guddee mu téyel ñi mokkal te booba mooy xalifa sëñ Tuubaa te mooy séddale reer bi boppam nee na menn mag ñëw na ne ko mbàkke si reer bi nga séddale sa bopp xam naa joxe woon ko ñu dee ko séddale ndax du la gën a noppal mu ne ko damay bañ xañ ko war a am ak jox ko wërta ko war a am ak jox ko wërta ndax booba njabootu sëñ Tuubaa gi ñu bari seen lépp moom la moo ko warlu te koo ko ci jox bu euh, nit koo dénk dara ñaari lu mere dana ko ci wane kon loolu itam bokk yi daa bokkoon ci matuk Cheikh Mouhamadul Moustapha tem royee ko ci yonente bi alayhi salaatu salaam waaye nag ballaloo ko ci yarub Cheikhuna Ahmadul Xadim tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax beneen bi ci des it muy li wax ak yëg ndax am na ci kenn ci njaboot gi koo xam ne bi amee jafe-jafe kawlax ci tilbinaar rek dem na ba foofu mu taxaw ko maanaam mësul xeebal kenn soxlaam kon loolu itam lu muy la mat bàyyi xel. ci euh, Yorob Cheikh Mahamadou Moussa beneen bi ci desit mooy li alquran waxoon yonente bi alayhi salaatu salaam wa shaawiruhum fil amri ku daan diisoo la ndax bi mu doon xalifa daana wax ne su ma juumee mbooloo juum ndax damay diisoo ko amub reer te du réere diineem damay diisoo ko amub reer te du réere diineem ndax boo diisee boo diisoo koo xam ni amul lu mu bàyyi këram xañ na dana la du la wax la war a am lépp. faw mu wut loo xam mu bàyyi ci wax bàyyi wàlla xel ci wax ji loo xam ne dana ci mën a fàggulum yóbboo këram waaye nag nee na damay damay diisoog borom xam-xam bu am lu mu jàpp moo tax nee na su juumee mbooloo juum moo tax Cheikh Moustapha mosula juum kon nag loolu itam ñu war cee bàyyiwaat xel bu baax di diisoo euh, ci lépp loo xam ne lii maanaam war na am beneen bi ci desit mooy li ñuy wax système de communication maanaam ku mënoon a wax ak mbooloo ku mënoon a wax ak mbooloo la ba tax na nit la woon koo xam ne discours yi mu bind yëpp discours la yoo xam ne bu ñu ko jàngoon tey day mel ni démb la ko bind ku daan mënoon a wax ak mbooloo la euh, sama ba tey ci wàllu liggéey liggéey ku xamoon stratégie liggéey la woon ñu war ko cee bàyyi xel. Cheikh Mahamadou Moustapha itam buñ la ko doon laaj mooy kan man nga ne mooy mu tafaqun àll boo ko seetee ci wàllu xam-xam mate na ko sëkk jikko ju rafet mate na ko sëkk. xam-xam ba mate na ko sëkk waaye xel ma it mate ko sëkk daane wax ne lépp lu sëñ lépp lu euh, lu fi nit defal sëñ tubaa ba mu seexal ba nga koy def maa yow a ko ànd lépp lu faay def bañ seexal rek sëñ Modou Sa na ba nga koy defal sëñ Tuubaa maa yow a wax nañ ne bi fi ku baax kii door a jóge itam bi nga xamante ne bii maam na ñëw na ne dañ koy yoonal daf ne kër lépp mën naa taxaw ba mu des njëlli njëli nañ ma wax nu mu toll ma fay ko nga xam ne njëlli moom kër ga booba noonu la doon doxe nga xam ne ku ñeme woon ku teel a ñemee responsabilité la ci kër gu toll ni kër sëñ Touba nga am ñeen fukki fukki at képp atta na wax loolu wax nañ ne la ca kër ga ba mu jeexee booba bàyyi na ay tundóote ay fukki fukk waaye nee nañ ba saa bu jeex rek ñu bojj mel sax indi ca la na ndeke liggéey baax na lool liggéey baax na lool naka noonu itam ku mataloon kóllëre la nga xam ne àddina du ko jàpp wala mbooloo jàpp ko ba mu fàtte kóllëre ko daan bàyyi xel la woon loolu itam suñ waajur nettali la ma ne ma bi muy sanc Taif fekk seen waajur nelaw dafa woo ay doomam ne leen seen bàyyi mooma sancaloon Touba Kayel te jigéen ma da ngeen di ñëw Taif mooy sëñ Mor Seck mi nekk Taif seen kër gi moo ko rëdd bàyyi ko. kon loolu itam mu doonoon koo xam ne kii te booba wax dëgg yàlla fekk na lépp wër ko waaye nag la ma la ñam daan xool démb ak barki démb fam leen tegoon daawu leen fa teggi kon loolu itam kilifa di ko war a bàyyi xel bu baax a baax ñu war a delluwaat ci njàngalem sëñ Modou Moustapha ci wet googu Euh, naka noonu itam bokk na ci li nga xam ne moom lañ war a bàyyi xel ci moom mooy diine jaral gën a la lépp Cheikh Moustapha lépp lu masa am def na ko ci diine képp ku ko masa a diis lu jëm ci diine loola daawu ci am xel ñaar da ko daan def na mu ko mën a loolu liggéey jumaa ji doy na ci firnde naka noonu itam euh, ku xamoon li ko sëñ Touba bàyyeel la yi nag ndax mag nee na bi mu dooroon toog toogaayu sëriñ tuubaa la daloon yonent bi alayhi salaatu salaam ci ba muy door a toog ba bi mu fi door a jóge mu mel ne daa amoon ci mbirum sëñ Modou Moustapha am mag mu ñëw ne ko mbakke tubaab bi day déggal na la damaa bëggoon ñi nga xam ne dañuy am sikki sàkk nga sant tubaab bi mu wax ak ñoom bu ñu nanguwul mu forcé leen waaye Cheikh Moustapha dafa ree ne ko man li ma yor doole sëñ tubaa la deesu ci tooñ deesu ci fayu des ciy dimbale li ma yor doole sëñ tubaa ci tooñ deesu ci fayu des ciy dimbale kon loolu itam muy lu mat a bàyyi xel loo xam ni euh, maanaam war jamono dana koy laaj saa ne